Oh, oh, oh, Oh mais mais deuxième taxi a le conducteur. deux taxis deux taxis da koy da koy jëlaat. moto bi nag. mi ngi nii convoi. convoi baa ngi nii. fi lay ñëwee. convoi baa ngi nii. mais taxi. Ah. Gen gen ya, ya, ya, bi mo jëk gen so lu yalla mo jëk gen ken mo jëk gen no fa lañ koy fek fa lañ ko fek bok lañ ko fek mu taxaw jay kat bok ci le bok wa wa c'est vrai sax bi faral mais wala tax na bi xoolal ci moom gën a gën a gën a xoolal fakki bi doo daan soog moom waaw ñu faral moo jëkk génn signal signal moo ma génn ay chauffeur bi génn waaw kii di arrière bi foofu la génn jëlal ma kii waaw c'est bon voilà